digal jóg na bàyyi ko ci xalifa général bu cene ba sëriñ see Ahmed Tidiane Seck yàlla na fi yàgg lool te ànd ak weer quarante et unième édition gàmmuk sëriñ Ousmane Seck bu Mbour jàpp nañ ko samedi le 12 octobre 2019 fële ca quartier santé su sëriñ seexu Amadou Seck imaamu ratib cene ba sëriñ Ñaana Seck chef de village sëriñ Abdourahim Seck xalifa maam Momar Talla Seck góor gu mag sëriñ Njaga Maxtaar Seck moom maam